atamane yi coow li bëri woon na ci lool ginnaaw bi Mansour Faye waxee ne xaalis boobee maanaam gouverneur yi jot nañu si gouverneur yi daal koy weddi yéen kaay gi di réew mi quotidien nee nag jamono ji mën wax ne lépp leer na jakartamaan yi bay boo ñu xaar seen wàll ndax léegi tey ñu jot si lu toll ci fukk ak ñaar ci ay ci Sénégal la ñu koy séddale Dakar bokku ci Kédougou bokku ci jakartamaan bu nekk dana am lu toll ci vingt ñeenti junni ak ñaari téeméer ak juróom gouvernement bi moom a daan nay tontu ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO daan nay wax ne loi la la loi bu baax la te kenn du ko supprimer ci réewum Sénégal moom ba ñu ko laajee na ko loi bii nga xam e e na ko Sénégal supprimer Omar Gueye nee na loi boobee daal bu kenn xaar ci réew mi bu ko kenn xaar ñu daal di koy supprimer moom Omar Gueye asamaan si loi la boo xamante ni bu baax la ndax loi boobee nag bu ñu ko andi si Sénégal lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ñeent ci ay candidat candidat danañu ko am Omar Gueye seetal ma lii rek lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay candidat fan la ko jëmee yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na neexul ba neexul waaye nag lii nga xamante ni waa CEDEAO wax na ko ci loi parrainage bi loole nag xajamal na mandat Macky Sall bi yéen a kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Tine mi nga xam ne moo porté woon plainte état nay wax ne Macky Sall jamono ji nag ko war Macky a démissionné ba pare organiser li doon def yéen a kaay gi di Vox Populi Omar Gueye la mu xam le ne réew yi nga xam ne maanaam mooy réew yu développé yi foofee da nga fa fekk parrainage kon lan moo a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf na docteur Abdou Sarr nga xam ne moo nekkoon directeur hôpital bu Linguère nee na dafa démissionné waaye nag loolee du dëgg Abdoulaye Diouf Sarr nee na docteur Abdou Sarr a kaay na toll si juróom benn ay centre dialyse yoo xam ne danañu ko tabax ci biir réew mi yéen a kaay maanaam nag amuñu daal culture nag jël ay daan di ko lal ci ndoddul ñi nga xam ne ñooy def ay giraawal yi journal bi nee na si Sénégal nag dangay gis ñoo xam ne daal maanaam dañuy def ay njombe yoo xam ne bakkan yu bare bare bare ñoo si nag bu ñu leen waxee maanaam Sénégal toog naan dogalu yàlla laak yàllaa ko dogal ak ji bi jaxate nee na loole nag moo yàq réew mi ndax lépp loo xamante ni xew na ci réewum Sénégal maanaam yàlla la ñuy tuumal yàlla la ñuy tuumal yàlla la ñuy wax ne mooy responsable te nag yéen a kaay na en tout cas lépp loo xamante ni am na ci réew mi am na koo xam ne dugal na sa loxoom yéen a de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu ci Sénégal nag dañuy wax ne Sénégal pays de droit la pays de liberté kon lan moo tax Sénégal maanaam amaguñu am nañu dayoo gis nañu fi ay jigéen ñu xarañ loola ci terrain économique bi ci lu jëm ci wàllum socioculturel ba ci diine ji yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu niki démb nag la ministre Antoine Diome doonee sale ki nga xam ne mooy Seydi Bokar Yàgg mi jiite police nationale moom Antoine toj Sénégal rawatina wàllum pétrole ak wàllum gaz bi nga xam ne moo feeñ ci réew mi kon nag nee na ay jumtukaay ay moyens yu dëgër këcc ci maanaam yoo xam ne war na nañu koo jox ñi nga xam ne maanaam ñooy takk der yi yéen kaay gi de Dakar Times nee na alhamdulilah accord de finance dox na diggante Sénégal ak FMI kon nag Sénégal jamono ji daal maanaam yaa ngi naaw lu toll ci trois cent cinquante milliards Sénégal ma ngi koy xaar yéen kaay gi de L'As Barthélémy Dias daan nay nga xam ne moo war a atte Ousmane Tounkara ñi nga xam ne ñooy nga xam ne